salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum xarit yi soo leen gisee fii ñu taxaw nag nga xam ne ñooy kin fat place lan moo xew ah le ancien premier ministre Amadou Ba benn Benno Bokk Yaakaar tey moo woote fii nga xamante ni mooy kin fat place ñu ñëw fekk fi membre yëpp fekk fi jàmbaari APR yëpp fekk fi jàmbaari président Macky Sall ma taxaw ak kenn koo xamante ni day ndaw mais dafa bëgg président Macky Sall

ci ban mbébét lañu am ci réew mi ak euh, ban yéene la premier ministre Amadou Ba am pour que buñ ko joxee le 24 mars incha allah réew mi fan la ko jëw war a jëme waaw loolu moo mooy sababu tey bi ñu war a ubbi suba euh, campagne bi incha allah rabi euh, di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy maye ndam te ndam li moom rek moom moo ko mën a joxe yàlla na ko jox sunu candidat Amadou Ba ci jàmm ak salaam ñun ñun réew mi ñëpp nag ñu àndandoo ko après liggéey. parce que nag Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Amadou Ba mooy candidat bi nga xam ne bu dee yaru yaru na bu dee teggin am na teggin bu dee xam état xam na état su dee su dee réseau am na réseau te jàpp naa ne Sénégal soxla nañ fi ne nii ku ñu boole jubóole ñun ñëpp parce que jàmm si la ñëpp xaj euh, politique yi euh, luy weesu la mais ñu xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bay tey li ma jàpp daal mooy les les hommes yi nga xam ne mooy APR alliance pour la république te gëm président Macky Sall te gëm ne Amadou Ba mooy sunu candidat ñi ngi fi toog euh, àndandoo le premier ministre Amadou Ba liggéey. waaye nag du APR kese coalition Benno Bokk Yaakaar ñëpp a ngi fi euh, le présidente euh, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi fi bari na ay responsable yu fi nekk yu bëree bari bari. tey sa kàddu gu mujj la. sama kàddu gu mujj mooy nañu fair play rek def ci élection yi jàmm nga xam ne yàlla rek mooy maye ndam Amadou Ba ku ko gis ni muy doxee nga xam ne kii Sénégal la ko euh, nit la koo xam ne nit ku dal la ku am yar ak i teggin mais ku bëgg Sénégal ci xolam euh, ñun na boo gisee ñu si son réew mi lañ gëm ñun doxuñu si ay calcul lii xewal la yàlla rek koo xam mais yàlla ñu yàlla may ndam ndam lu sedd guy te ndam ni ndamu Sénégal gépp fay naa la sama waa ji mais tey ku ñëw ci salle bi gis euh, li nga xamante ni ñoo fi daje ci APR ak Benno Bokk Yaakaar tey kenn ku ne xam la ci réew mi ngay liggéey pour lu jëmale réew mi kanam ngay liggéey pour lu jàppale Amadou ak président Macky Sall tey bi nga ñëwee salle bi fekk mel nii ban yëg-yëg nga waaw dañoo ganaa bi ma jullee si yonent bi euh, waaw damay gërëm euh, ñëpp di gërëm responsable yi nga xam ne ñëw nañ fi. Euh, ñun direction président lañ jël euh, président Macky Sall moo ñu joxoñ Amadou Ba ne mooy mooy candidat am moom ay waxam bal la si ñun lu mu ñu wax loolu la ñuy def moo ñu joxoñ Amadou Ba moo tax ñu ñëpp ñu takk suñu ndigg takk suñu ndigg jël lu ñu am ak lu ñu amul def ko si pour Amadou jël ndam li te incha allah Amadou Dia Diallo kontaan nañ trop nag gis nañ kilifa ga yëpp ñëw nañ ñi am ndombo yëpp ñëw nañ kontaan nañ si ñoom ñëpp ñuy ñaan ñaan euh, responsable yëpp nañ bokk ndey bokk bàyyi xam ne benn objectif lañu am mooy fal Amadou au premier tour au soir du loolu la mooy suñu leneen ñoo ñaan ñoom ñëpp nekk dellu si base ba liggéey xeex pour saay-saay yi a wax na dëgg nee na président Amadou Ba. incha allah Modou. waaw Papa Peex. waaw. li gars yi waxee dëgg président Amadou Ba waaye dama ne suuxlu mbër lang ak moom ko gën muy bëree daan ngay dee yàlla noppi na. ma mag ko wax de. waaye garab ba na ma doon pénc law di ko gis na. leen waaw mais kaay nii rek kaay wàccee nii. wàcc leen wàcc leen. Bokum Sow ñu ngi lay nuyu. le ministre de la jeunesse. monsieur Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour. Pape Malick Ndour vient d'arriver. Pape Malick Ndour ñëw. li waral sama teewaay mooy la la convocation de candidat unique. le meilleur profil pour le Sénégal, le candidat euh, Amadou moo l'ensemble des euh, responsables et élus pour ñu ñëw wuyu si ko ci kër des présidents mu mën a saafante ak ñun waxante ak ñun loo xam ne danañu jox bagage yi ñu mën a dem na dem ci kanam. alors lan nga ma mën a wax loo xam ne dina tax euh, sénégalais xëy bu ñu sa kàddu euh, mën a voter euh, sa candidat. waaw li ma mën wax ci loolu noonu mooy. Euh, Sénégal euh, nekk na dëkk boo xam ne fi tabaarakalla macha allah ñëpp ñi nga xam ne jaar nañ fi bay nañu seen waar mettre euh, porter les pierres di l'édifice tey jii nag le président Macky Sall liggéey liggéey bi léegi mu fi liggéey bu wanee ginnaaw tey war na am un candidat bu am profil boo xam ne mooy permettre continuité bi ci biir liggéey boobu noonu ak responsabilité yooyu noonu ci Sénégal te loolu noonu Amadou Ba moom mooy vraiment. profil bi nga xam ne moom la ñu gis ne aujourd'hui c' est le meilleur profil c' est le choix du président de la République dëgg la mais c' est l' adhésion de l' ensemble du Benno Bokk Yaakaar ñoo ko joxoon baaraam parce que yéen a ko jox réew mi ñu continuer waa kay macha allah liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey notre cher Sénégal qui n'appartient allah ñu génn ci 8 mars bi tey nga ñëw samedi fii kin place gis mobilisation bi am solo bi fi am tey nga nekk jigéen ah, bëgg réew mi ak fi réew mi jëm boo amoon kàddu yi ñuy sànni yan kàddu nga di sànni. waaw euh, kàddu yi may sànni mooy kàddu kontaan ci fi nga tàmbalee ndax danga ne ñu génn ci 8 mars 8 mars nekk journée de la femme mu nekk journée boo xam ne dañ ciy taxaw seetlu xool suñu démba xool fu ñu toll ngir gën a mën a defar suñu ëllëg loolu nag jàpp naa ne buñ ko contextualiser rek day direct lu am solo ndax dañu jëm ci élection présidentielle mu nekk jongante mu nekk ay doomu Sénégal yoo xam ne dañuy tase daje laaj baatu askan bi buñ koy laaj dañ naan ñun ñëpp ay sénégalais leen xool leen kan ngeen di tànn ci ñun ci ku ngeen gën a wóolu ci ku ngeen gën a yaakaar ne mën na yor réew mi ndax réew doo seet ki nga bëgg da seet ki mën yor réew mi rawatina boo xoolee semaine yi ñu génn weer yi ñu génn at yi ñu génn li xew Sénégal yëpp dama jàpp ne ay misaal la yu sunu borom di ñu wan ñun askan war nañu gën a taxaw war nañu gën a bàyyi xel loolu moo tax jàpp naa ne kandidaa yi fi ne bu doon sama sago damay ñaan askanu senegaal ñu tànn ci sepp ci le candidat Amadou Ba li tax ma koy wax du dafa gën kenn li tax ma koy wax du moo mën ñëpp li tax ma koy wax jàpp naa ne jaar-jaar bim ñu wan ak capacité yi nga xam ne am na ko ak miin gi nga xam ne miin na ko ci di dem di wuti loo xam ne dina ko delloosi si biir réew mi mu jëriñ askan wi jàpp naa ne pétrole gaz bi ñu dëgmal ak euh, jafe-jafe yi nga xam ne wër nañu ah war na ci mën a am taxawaay bu mucc ayib léegi nag li ci des mooy campagne bi tàmbali na ñi ngi ñaan suñu borom ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim yegg ci le 24 mars kenn ku nekk woote ci jàmm ak salaam su ngoonee ñu joxe résultat yi ki gañe gañe ñi nga xam ne aussi yàlla dogal na dañ leen a raw wala ñu jiitu leen ñu félicité seeni adversaire bu ñu xëyee altine ñëpp ñëpp liggéey ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi koy ñaan suñu borom di ko ñaan ci barke suñu kilifa yu baax yi fi ne moo xam kilifa diine yi la moo xam kilifa aada yi ak kenn ku nekk rek ca ka nga yaakaar ñu ñaan suñu borom defal ñu loolu bi ñu téye ànd ko président Macky Sall xam nañ yoon mi ginnaaw yoon wi am nañu yéene bi ndax nag gor buñ la sasee boo mënee def benn jéemal def fukk. as bu ci fàtte kenn ñi ci jiitu mooy ni ma ko waxee léegi njabootu benn Bokk Yaakaar. moo tax juróomi at yii di ñëw. li nga xam ni dafa jëm ci li ñuy wax capital humain maanaam dundinu askan wi dinañ ci def ay jéego yu mucc ayib. njëg yi danañ ko wàññi. serai le président de l'emploi des jeunes lépp lu mu jar ba doomu Sénégal mën a dund fii ci biir Sénégal. di fi suturlu dimbali askan wi dimbali ay waajuram dinañ ko def potentiel bi am na fi capacité yi am na fi loolu dinañ ci liggéey liggéey bu mucc ayib naturellement duñu ñu bàyyi mag ñi